alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahaabatihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin bokki jullit yi nuy déglu dinu teewlu bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weru tedd wi di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam ngeen ni noo ci weer wu tedd muy weeru koor weer woo xam ne weeru yërmande la weeru njëggal la weeru gore la ci safara koor di ponk ñetteel ci ponk islaam ci bu nu ko tegee ci xadisu عبد الله بن عمر رضي الله عنه بمجلة ينتبه صلى الله عليه وسلم وحني بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت buñu ko tege ci دنيا bobu rek dañuy تلو بونكو kon koor mooy mu doon lool sax na ci alquran farata la ju sax ci alquran sax ci sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boroom xam-xam yépp yi ci war gemu war moom weeru koor sax na ci alquran ngir sunu boroom ma wax ci alquran ne yaa ayuha amanu kutiba alaykum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سن بروم ما وقت القران ين نيغم دانيو فرتا ليف ني سي ين وور ني نيو كو فرتا لي وون تي جيتو وون غير نين اموك راغال يالا بودي سي سنه موم لا واخون ليك موي حديثو ابن عمر رضي الله عنه بيغا خامتني متفق على صحته لا موي ديبو نان سي ني النبي صلى الله عليه وسلم mu wax ni buniya al islaamu ala xamsin islaam ñi ngi ko tabax ci kaw juróomi keno shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaa wa itaa zaka wa sawmi ramadana wa xajjil bayt ibnu omar radiallahu anhu jël na ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu wax ni islaam ñi ngi ko tabax ci kaw juróomi keno ba ci jëkk mooy seeren yàlla rekk buur muhammad ab yeneen teem la ndawam la lu mu yónni boo seetee loolu bu ñaareel bi mooy julli yi juróom bu ñetteel bi mooy weeru koor bu ñetteel bi mooy joxe azaka bu ñeenteel bi mooy weeru koor ak aj néeg ba aj kaaba ga juróomi ponk yi ñooy ponk islaam kon koor mi ngi taxaw foofu ci ñeenteelu ponk bi bu dee dëppoo gi ci boroom xam-xami diine yi dëppoo it bu jëkk ak tey ci yam kenn mës a gis ko woote ci waru weeru koor jullit yëpp dëppoo nañ ci ni weeru koor lu war la farata la ju suñu boroom farataal ci jullit yi lan mooy koor alwo koor bu ñu ko waxee as mu ci làkku arab mooy téye sa bopp ak fegu bañ a def nangam lépp loo téye sa bopp bañ ko def rek loolu maas na ko tuddee koor dañuy wax ni saamaxanil kalaami mooy téye boppam bañ a wax ni sunu boroom waxee ci sóoratu Maryam ti nett li wax ju naa Maryam waxoon muy inni nadartu lirrahmani sawman mooy dama nésér ak noppi yaani sumtan anil kalaami maanaam téye sa bopp bañ a wax jooju képp rek des na ko tudde as sawmu woor nag ci sharia mooy téye sa bopp ci bëccëgu weeru koor bëccëg bépp bañ def jëf leen lu lay dogloo ànd ak yéene tàmbulee ci fi fajar xare bu bi jant bi sox koor dafa am ñaari ponk ci ni ko Malik yoone yi di waxe ci ngërum imam Malik koor ñaari ponk di ci am am na sax ñeneen ñoo xam ne ñoom benn ponk boobu képp la muy téye sa bopp ba du def lu lay dogloo waaye ci ngër mi ñu nekk daal koor ñaari ponk la mu yéene ak téye sa bopp ba doo def lu lay dogloo moom la sëriñ bi eh, wax ci téeréem boobu ñu tudde tasawudu sixaar ba muy wax faratay koor dafa wax ne siyaamuna lahu faridataani bila ziyaadatin wala nuqsaani sunu koor am na ñaari farata eh, amul dolli amul wàññi Eh, niyatuna wa kaffuna ham muftiraat moo yéene ak fegu walis lépp lu lay doglo li wajhi baaqin mutaimin bi tayibaat ngir jëm yàlla mi nga xam ni dafay lele ca ñam yu tey jamono ju juñu ko war a def koor dafa am wenn weer ci at mi muy shahru ramadan waaye bu weer wi dugg see jamono ji nga xamantene ci la koor gi tàmbali ak fi mu yem ci biir weer woowu mi ngi tambule ci fi fajar fenke ba ba jant bi sox loolu it li cëslaayam ci alquran mooy li sun borom wax ni wa kulu washrabu xatta yatabayyana lakum alxaytu al min alxayti al min alfajir dee leen lekk di naan booba wëñ gu weex leer ngeen xàmmee ko ak wëñ gu ñuul ci fajar gi waaye loolu lépp nag kinaaya la ci lam jublu rek mooy leeraayu bëccëg bi dem ba xàjjale ko ak ñuulaayu guddi gi rek moom la dàkkentale alxaytul abyad wal xaytul aswad kon koor mi ngi tàmbalee ci fi fajar jotee ba fi jant bi sox waaw bu dee ci réew yi nga xam ni nag ñoom bu ñu xasse jant bi dañu koy gis lu mat juróom benni weer guddi gi it bu xasse ba tàmbali juróom benn weer yoo xam duñu gisul jant ana ñooñu nu ñuy woote ñooñu ba tey borom xam-xam yi li ñu wax ci e, seen atteb koor mooy dañuy natt réew ma leen gën a jege réew ma leen gën a jege te jant bi dafa fenk di so ñu nattale seen koor ci noonu di jàpp heure yooyu di ko wóor kon loolu mooy li nga xam ne moo aju ci e, jamono ji ñu war a bu dee kuy jës ab jant bu jant bi bu fajar fenkee booba jant bi sox bu dee ka ko dul mën naa natt ci réew ma ko gën a jege tey gisub jant muy natt ci seenug euh, fajar ak seen jant bu so koor nag kañ lay war mu ni koor weeru koor dana ware benn ci ñu jës teru teli bu fekkee asamaan si dafa leer nañ wuri amul benn euh, niir bu ci nekk bu fekkee nag dafa niir mbaa ab nekk ci asamaan si ba tax mënee su sa gis weer wi loolu kon dañuy matal weeru baraxlu fanweeri fan moom la sunu boroom wax ci alxuraan ne fa man shahida minkum shahra falyasumhu mooy ku ko ci gis rekk na woor ak wax ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi mooy dee leen woor bu ngeen gisee teru teli wori ci bu ngeen gisee teru teri waaye fa in xumma aleykum fa akmilu iddata chaabaana salaasina boo fekkee nag dafa am lu nii aw niir wu dox seen diggante ak gis weer wi wala muy ab pënd bu dox seen diggante ak gis weer wi kon mottu li leen euh, li mu baraxlu muy fanweeri fan kon loolu mooy euh, sukkandikuwaay bi ñu sukkandiku ci ni euh, weer wi nii rek lañ koy saxale muy gis ko mbaa nga mata fanweer koor anakan lay war war na woo koor mi ngi war ku baadix mooy ku mesure magum jëm moo xamante ni baadix na euh, ba noppi doon borom xel nga xam ni kon koor warul gone euh, bi nga xamee ni euh, mesure na it bu fekkee amul am xel nga xam ni dof la ba tey koor du ko war bu xamee koor du ko war muy kiris boo xam dafa koy tàqale tàggale ak i akum xelam ba tey koor du ko warati waaye ki nga xam ni it dafa teew mu teew ba noppi wér nekk ci ab dëkkam ba noppi ànd akuk wér kooku ba lay war bu fekkee ni amut lu ko teree koor waaye bu fekkee ku tukki la léegi wàccee nañ ko ko ba yeneen jëmmi jamono ngir li sunu wax ci alquran ni fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun kon moo tax wér gi ab sart la ci teew gi ci sab dëkkuwaay it ab sart la ci mu war la waaye boo wéradee mën ngaa bàyyi ba yeneen jëmmi jamono bu fekkee da ngaa tukki it mën ngaa bàyyi koor gi ba yeneen jëmmi jamono nga fay ko bu fekkee dara jotu la te tukki woo waaye am na lu la tere woor mooy ngant luy dal jigéen lu mel ni wasin mbaa mu jës regal ba tey kooku euh, koor gi daf koy wàcc weer wi nag euh, nu muy saxe mu mel ni boroom xam-xam yi wuti nañu ci euh, nit ñuy saxale weer wi indi nañ ci ñetti xeeti wax ba ci jëkk mooy mbooloo mu bari gis ko mbooloo mu bari moomu nag bu dee mbooloo mu baree bari moo xam ne mënuñoo di complot di fendal Buniya buñ ne gis nañu weer wi waa barab sangam ne gis nañ ko ñeneen ne gis nañ ko ñeneen ne gis nañ ko bu doon mbooloo yu bari yoo xamante ne mënuñoo takkatoo di fen ñooñu doon duñ ca sartati ak maandu teeg ñàkk maandu comme mbooloo mi noonu la bari rek dañuy jàpp ni waris naa woor ñaareelu li tax ñu war a moy mooy ñaari way maandu ñoo xam ne xam nañu seenu maandu te saxal ni ñoom gis nañu ko bu boobaa des na wor bu dee weeru korite it ñaari way maandu yooyu ñu saxal seenu maandute bu ñu ko jësee des nañ sukkandiku ngir wari bu ñetteel bi mooy benn waay bu ko jës boo xam ne ku la kooku euh, koor gi dana doon farata ci àqam moom mën naa woor bu dee woor mën naa woor moom jëm boppam ak koo xam ni wax na ko ko te kooka dawul sonne mbiri weer wi waaye bu dul loolu maanaam kenn nit képp ku du tax mu mën a woor woorloo mbooloo mi mbaa mu wóoriloo leen waaye moom ma ko jës nag moom jëm bopp moom day farata ci moom mu woor bu dee weeru korite it day war ci moom mu dog moo koo xam ni dawul sonn ci mbir weer bi ba tey bu ko waxee mën na caa sukkandiku waaye ku daan sonn ci mbir weer bi di ko gëstu sax léegi gisu kenn nit du ci sukkandiku ba tax mu war a wor waaye kenn kooku nag ñu wax ni bu ko gisee te doon ko maandu kenn kooku sartuñ ci mu doon góor mbaa mu doon as léegi kenn ku mu doon rek baax na maanaam teg rek lañ sol waaye ili ilimaan nag imaam nag bu fekkee moo gis weer wi kooku moom dafay war ci nit ñi ñu woor ñu dellu di wax ni ba tey teru teru weer nag du saxe ci waxi e, boroom xam-xamu biddiw xam-xamu biddiw ki ko xam jàpp ni weer wi bis sàngam la war a dugg bi sàngam la war a génn nga xam ci ay xam-xam la ko teg kooku weer wi du saxe ci ay waxam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa Euh, bi muy wax weer wi dafa wax daf ko at ci ngeen gis ko soo moo li ru'yati yi la wax waaye waxul liwu wu jodee waxul ni bu bu fekkee mi ngi ci jaww ji ki nga xam nag moo am xam-xamu bi mën naa am lu ko leer ci weer mi ngi ci jaww ji feeñ na tey jii waaye ci kaw ñàkk koo jës woor du war du war nit ñi ak dont li muy wax wér na kon jëfandikoo xam-xamu biddiw ci walu wer donte werne yit ci walu sharia ken du ci ko ngir saxal wer wi weru koor ma saxal weru korite lolou mom moy liñu ñu ko ci ngir mi nu nek muy ngir imam Malik euh ci li nu xam waye nak teewut bo deme ci tere buñ wax bidayatul mujtahid ta ibnu Rushd talif ko nettali na ci jële ci kuñ wax ibnu Surayj mu jële ci imam Shafii radiyallahu anhu mu wax ni koo xam ni ci xam-xamu biddiw la daan tegtaloo ak di tegtaloo ci wàcc yéegu ko weer bi wàcc nëbbatu ko weer bi feeñu ko weer bi kooku bu ko leeree ci xam-xam yooyu mu daan sukkandiku ni weer wi tey jii daa war a feeñ kooku mën naa sukkandiku ci xam-xam boobu ba woor te boobaa koor googu dina ko doy loolu kon sax na ci ngeenu saafin yu eh, ñu wax ni ñoom eh, borom xam-xamu fëlëk eh, te mooy xam-xamu astronomie mënees na sukkandiku pour di woor ci boo amee lu la leer ak donte weer wi feeñu gisuñu nit ñi gisuñu ko kon loolu waaye la ca sax ci sunum ngir na ñun mooy nii xam-xamu fa rek deesu ci sukkandiku ci woor deesu ci sukkandiku ci wote waaye nag sax na ci ngirum imaam Shafii radiyallahu anhu léegi wuuteeg euh, fekkukaay fenkukaayu jant yi nag bu amee euh, nuñ ciy doxee mu ni ba tey loolu boroom xam-xam yi euh, lañ ca wax lu mel ni nit ki nekk fii kii nekk Afrique kee nekk Asie kee nekk Australie kee nekk Amérique sore googu léegi ndax dana tax ñu dëppoo ci bu ñu gisee weer wi fii mën a woor fépp walla fokk ñenn ñu ne dañ koy gisee seen bopp loolu am na ñu borom xam yu wax loolu ba tey ñaari xalaat la ci foqahaaw yi indi ci ndax dañu war a woor ñenn yi waruñoo woorandoo dañoo war maam jullit yëpp dañu war a woorandoo ci buñ ko gisee ci benn waxtu ak fu ñu ko mën a gis ndax dañu war a woorandoo wala wërti demee noonu loolu ñaari xam-xam ñaari xalaat moo ci am yu borom xam-xam yi indi léegi xanaabila yi ak xanafiye yi mooy ñi topp ngirum imaam ahmad ak ñi topp ngirum imaam abu hanifa ñoom dañoo wax ni jullit yi yëpp bu ñu ko jësee fenn képp ñëpp war nañoo warandoo fenn fenn bu ñu ko jësee ci Amérique jullit ya nekk ci Afrique ak ya nekk ci Asie ya nekk ci Europe ci am ñëpp dañu war a woor bu fekkee ñu wér gis nañ ko mbooloo gisandoo nañ ko foofa wala ñaar ñu maandu gisandoo ko foofa ñoom dëppoo nañ ci ni boo ko ñenn képp gisee ñëpp duñu war a wor loolu kon xanaabila yi ak xanafi yi euh, dëppoo nañ ci xalaat boobu duñ ci nee na ñoom nañ duñ ci xoolati léegi ay penkukaay yee bokk ak bokkuñ jege nañ war wala jegewuñ loolu seen yoon nekk ci bu ko yenn jullit gisee te gis ga wér ak fu ñu ko mën a gisee continent bu ñu ko mën a gisee waa fu ab jullit nekk ci àddina bi war ngaa woor loolu mooy xalaat bi xanafi euh, yoon yi joxe ak xanaabila euh, yi riwaaya boobu loolu yi ñu waxit ñoom moom la ibnu xaasim nett li mook ñoom mook euh, waa misra jële ko ci imam malik imam malik jële nañ ci moom mu wax ni bu fekkee sax na ne weer wi feeñ na ci dëkk sàngam wér nañ feeñ na fa ña wóorutoon ci bis boobu war nañoo fay war nañoo fay seen boobu ndax koor del na war ñoom ñëpp kon day mel ni ñetti nger yi mooy ngërum imam ahmad ak ngërum abu hanifa ak ngërum imam malik ci riwaaye bi ibnu xaasim andi foofu dëppoo na ñoom ñëpp ci ni weer wi mu feeñee ci àdduna bi ñëpp dañu war a warandoo mu des Shaafi'i ya imaam Shaafi'i radiyallahu anhu ñoom liñ jàpp mooy e, bu feeñee ci ab béréb ña jege booba mën nañoo ànd ak ñoom woor waaye ñi leen sori seen yoon nekku ci ku ci ne rek si ñooñu e, am nga dalil léegi riwaaye boobu imaam Shaafi'i sukkandiku nag day mel ni Malik ci beneen riwaaye lam bi te waa Madina sukkandiku ci euh, te ku ñuy wax Ibnu Majishun ak al ñu bokk ci àndoo Imaam Malik ñoom foofu lañ nekk ñoom dañoo wax ni weer wi bu feeñee ci barab ñooña la concerné waaye ñafa jegewul ñooña seen yoon nekku ci kon léegi loolu lu ma ta xam la muy Imaam Malik ko ñaari riwaay la ci am riwaay bi Ibnu Xaasim andi ak misri yoon yi ñoom dañoo dëppoo ak les xanaabile euh, yi ak xanafiye yi nekk mooy ni fenn fu ñu fa jës ñëpp a war a woor beneen riwaayaam bi nga xamante ni waa Madina nañoo ko nettali te Ibnu Maajisoon ci loolu la jàpp ak ñoo ñu dañoo wax ni ñoom imam Malik kat lañ dégg ci moom mooy bu feeñee fii ñooñu mu feeñal la concerne waaye ñi leen sori seen yoon nekku ci imam Shafii yi moom ni fi mu feeñ ak ña leen jege mën nañoo bokk woor waaye ñi leen sori seen yoon nekku ci kon loolu mooy li boroom xam-xam yi wax ci wuuteeg fenkti fen fen fen fenkti jant bi ñoo ñuy wax yéen ni bu weer bi xasee feeñ ak fa mën a feeñ ñëpp dañoo war a war amul jege amul sore dañoo sukkandiku rek ci hadis bi yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ma wax ni suumoo li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi na ngeen dog bu ngeen ko gisee na ngeen woor bu ngeen ko gisee na ngeen dogit bu ngeen ko gisee ñu wax nag léegi kàddu yooyu yonent bi wax muy bu ngeen ko gisee woo leen day tegtale waru koor ci mboolem jullit yi ci buñ ko gisee rek léegi nag dañ ko itlaax te lépp loo xam dañ ko itlaax te mooy dañ ko boyal wax cëpp juñ boyal dañ koy bàyyee ca noonu mu boye woon mbooloo daal bu ñu ko gisee ba ñenn at ñu nangu ñépp dañ ci war a dëppoo am ay duñ ci war a xaajale di ko xaajale nag naan jege nañu sore nañ loolu moom kooko xaajale yëpp amoo ci tektal bu leer bu jóge ci yenn tamit ñoom daal xadis boobu kon ci lañ sukkandiku ba tax ñu ni weer wi bu feeñee fenn ñëpp dañu war a wor léegi nag saafiiyatu yi yi wax ne waa imam saafiya ñoom ñi wax ne eh, ñoog ña leen jege ñoo moom weer wi waaye ñi leen sori seen yu nekk ki ana fu ñu sukkandiku ana fu ñu ko tegtaloo ñoom ñooñ ñi ngi tegtaloo ci eh, hadisu ku ñu wax Kurayb eh, Kurayb moomu dafa wax ni umul fadli daf ma yónni woon ca Muhaawiya ca saam nee na ba ma ñëwee saam ba fajal ko itte ji ma yónni woon ba noppi weeru ko teroo ma foofa booba maa ngi saam ma gis ko man guddig aljuma aljuma alxames ca guddi bët sedd aljuma guddig aljuma ca laa ko gis bi ma ñëwee maddina ci mujjug weer wi Abdullah ibnu Abbas laaj ma wax ba tuddu tudd terutali ni ma yéen kañ ngeen jës gis terutali nee na ma ne ko ñun guddik aljuma lañ ko gis nee na Ibnu Abbas ma yow yaa ko nee na ma ne ko man mi maa ko gis maa nit ñi gis nañu ko woor nañu Muawiya sax woor na léegi nee na Ibnu Abbas ni ko waaye nun guddik gaawu lañu ko gis kon dañuy continuer di woor ba ba ñuy matal yoon baa ñu gis ko nee na ma ne ko waaye xanaa war ngaa mën a doyloo gisug Muawiya ak koram nee na ma déedéet ndax lii lanu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam digal nii lanu ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam léegi kon waxi Ibnu Abbas jooju tegtale ni moom sukkandikuwu ci waa gu ko gis ñoom ñu nekk Madina eh, mel ni kon bu ko ñee gisee ñoom la concerné waaye ñii ko gisu seen nekk yu kon imam Shafii yu ci hadis bi ci la sukkandiku léegi ñële yi sukkandiku ci hadis bi kon mu noonu bu loolu jàllee kon njariñi koor koor dafa bari ay njariñ lool ci wàlli wàllu màdda te mooy matériel ak wàllu ko ku ne sa jëmmi bopp koor am na ci njariñ sa ruux it noonu ba ci jëkk ci wàllug li muy jariñ ci ruux mooy koor ak jaamu yàlla la goo xam ne jullit bu ko def yàlla fay la ci koor mbir la moo xam ni mënees na ci amee yàlla koor jaamu yàlla goo xam ni jëf ko dana dugal nit aljanna koor ñaareelu ñaareelu njariñ yi lañ ci mën a wax mooy koor dafay far ay bàkkaar bàkkaar yi at bàkkaar yi at ndax am na xadis bu yonente bi sallallahu alayhi wa wax ni koor ba weeru kooraat day far li nekk ci diggante bi ci ay bàkkaar koor dafay dëggal ak ragal yàlla ndax sunu borom bi muy digle koor dani kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun kon ragal yàlla giñ soxla ci nit ki te ragal yàlla mooy lan mooy topp ndigal yàlla yi ak bàyyi tere yi koor daf da ci dimbale nit ki ngir mu mën a topp ndigal yàlla ak mën a bàyyi yi ko suñu borom doon tere koor ba tey nit dana ci entraîné woo ci mën a muñ dana ci jànge ak mën a muñ loolu ba tey ndax bi nga xiifee te sañoo lekk mar te sañoo naan léegi ñàkk googu nga ko ñàkk sañ ba noppi muñ ko ba ba waxtu wa jot nga doon ko def kon day mel ni dafay entraîné nit ki ci mu mën a muñ koor ba tey dafay jàngal jullit bi al amaana te mooy e, di di bàyyee xel yàlla léegi bi nga wéetee xiif nga mar nga kenn gisu ku dul yàlla te lékkoo nanoo loolu kon day mel ni yëg-yëgu ni yàlla mi ngi mooy gis fu ma woon nekk ab jullit mi ngi koy jànge ci koor koor day jàngalewaate loolu kon day mel ni ndax bi mu xamee ni kenn gisu ku dul yàlla ba noppi teewul mu bañ a lekk bañ a naan rek loolu kon am jàngale ci nu ñuy yëge yàlla ci jamono bu ne koor ba tey dafay dëgëral nammeelug nit ki ak di daas ak dogoom day tax nit ki amuk dogu koor dafay sellal am xel day tax nit ki e, bu fekkee ni am xelam daa xawoon lu ci ëpp ñaare buy woor di yëg ubbi ko lépp ci njëriñu koor koor day jàngal nit ki e, nu ñuy organiser ay mbir ndax forcé gi mu lay forcé ci mu am heure bu fixe boo xam ci ngay sañ a lekk loolu rek boo ci jógee war ngaa mën a jàngate ci koor ni àdduna lépp dañ ko war a fixe dañu ko war a programmé nga xam ni lu ci ne ak heure lekk doo capti capti lekk fu mu la neexee waaye day am heure lekk ak heure yooyu nelaw ak heure yooyu jàng ak heure yooyu waxtaan heure yooyu jaxasoo ak nit ñi heure yooyu gëstu xam yooyu yëpp ni lu ci nit ki dafa war fexe ba organiser ko teg ci aw yoon léegi ndax suñu borom lépp daf ko organiser lépp daf ko programme léegi jullit bi dana jànge programme ci weeru koor koor ba tey dana yëgloo jullit bi bennoo gi jullit di bennoo ngir jullit bi nekk fii ci Afrique jullit ba nekk ci Europe ba nekk ci Asie ba nekk ci Australie ba mu nekk Amérique jullit yépp bu weer bi teroo ñuy warandoo ñu xam ni fu ab jullit nekk ñi ngi ci biir weeru koor loolu kon danañ ci yéege benn ak jullit yi boo fee ñu gën a góorgóorlu ci benn la seen bopp ci biir loolu xam ne yàlla ak benn lu bëgg ci ñoom ci góorgóorlu seen kem kàttan euh, koor ba tey dafay euh, jeqi yëg-yëgu yërmande ak mbokk ci diggante doomu aadama yi waaw ndax bu dee fecca ci Touba dañ koy dund bu baax dañuy dund bu baax léegi kenn ku ne euh, xool sa mbokk moo war a jox suukar sukoor keeseet comme ko war a jox keeseet comme ko war a jox daanaka dañ koy jox jolaate di ko jox jolaate ba kër sa kilifa dem mën ngaa ñu dajal defal lu bëree bëri ci suukari koor waaye moom itam noonu la koy séddalewaat ba am na ci ñoo xam ne sax dañuy jëndaat suukar di ko dolli ci suukar yi ñu leen joxoon ngir joxe ko mu mel ni kon day jeqi yërmande ak mbokkoo ci biir jullit yi da ciy feeñ loolu naka noonu lu ne dafa waay dafa aajee ab noflaay mu no lu ne dañuy soxla ci moom noppalu noppalu suñu borom daf ko bindaale doomu aadama mu bokk ci li koy e, joxaat énergie pour mu mën a góor gën a gën a jàllaat léegi ak bàq comme mooy jël ñam wi di ko téye di ko partage di ko nangam nangam léegi loolu jamono bu mu ni tekk noppalu tuuti dara bañ bañ bañatee sonn day am solo ci moom ba tax na koor day mel ni ab noflaay la ci bax gi waaye nag noonu la mën a indile nit ki wér gi yaram it nag ndax lu ëpp ci eh, ak wéradi eh, la woykat ba wax rek fa inna daa aksara ma taraahu yakunu min altaami aw sharaabi woykat bi dafa wax ne jàngoro lu ëpp foo ko rek ci ak lekk la bàyyi ko mbaam bàyyi ko ci ak naan moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa wax ni eh, soomu tasixo woor leen kon da ngeen wér da ngeen am wér mu mel ni woor mooy jihaad ji gën a mage ci ku bëgg a ak bakkanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yéen mboolem xale yi xale yu góor yi ku ci mën a denc na denc ku ko ci mënul dénk naa ko koor ndax koor googu euh, ab mm, jumtukaay lay doon ab fegu ak ab pakk doon bu koy fegal yu baree baree bare فعليه بصوم فإنه له وجاء رمضان نك أبرنا إنجن اللول لتجك موي موي سنغب ويري طبراني نتلنا تي جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم وحني سيد الشهور شهر رمضان سنغب ويري موي ويركور وسيد الأيام يوم الجمعة سنغب بسيد موي بسوى الجمعة نكنو نيت ينتبه صلى الله عليه وسلم وحني آه، نتني بون خمون لنكتب ويركور دي kon danañu mebet weeru koor mat at kon li bëgg sax mu mat mu mat at ba tey ñu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wax ni weeru koor a ngi di weeru barke dikkal na leen yàlla dana leen ci ñëwal dana ci wàcce yërmandeem di ci sippi ay ñaawteef di ci wuyu seenu ñaan yàlla day xool jëkkante gi ngeen di jëkkante ci def lu baax muy puukare woon teeg malaaka yi ci yéen kon nag fexe leen ba won yàlla ci seen bopp lu baax daan leen kataxee di dëgg day mooy ki nga xam ni xañ nañu ko yërmande yàlla ci weeru koor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa yéeg ci kaw mimbar bi war a xutba daal di jekk-jekki ne amiin toogaat tuuti ni waat amiin toogaat tuuti ni waat amiin bu mu ñett yoon bañ ko laajee lu tax mu wax ñetti amin yooyu mu ne bi ma yégee ci kaw mimbar bi la ma jibril ñëwal ni ma képp koo xam ni dugg na weeru koor ba génn jéggaluwul yàlla bu mu jégal ko ba tax muy dee di tàbbi sawar de yàlla na ko yàlla sori yërmandeem nee na ko amin muy weeru koor occasion la boo xam ni bu ci nit jéggaloo ñu jégal ko kon nit ki nam def ba weeru ko ñëw ba jàll jéggluwu ci ba tax muy dee di tàbbi sawara kooku euh, ñàkk tawfeex de moo tax Jibril ñaan ni ki def loolu de yàlla yàlla yàlla sori yërmande nee na ko amin bi mu wax ni mu ni ma képp koo xam tuddees na la fi moom julliwut ci yow ba tax muy dee di tàbbi sawar day yal na ko yàlla sori yërmande ma ne ko amin ndax julli ci sa bi sallallahu alayhi wa sallam yow moo dañoo bàyyi koo xam ni te bépp jullit boo xam ni tudd nañu yon bi ci sa wet nga julli ci moom ni sallallahu alayhi wa sallam loolee dana nekk wiqaaya dana nekk ak fekk goo xam ne suñu borom dana la ci fegal sawara kon ñàkk tawfeex weesuwul saa bu ñu tuddee yonent bi nga ni cell ba tax ngay dee di tàbbi sawara jibril noonu la ñaan ñetteel bi mu ni ko mu ni daf maa wax ni ma képp koo xam ni fekk nga sa ñaari waajur ci kaw suuf mbaa nga fekk fi kenn ci ñoom ak yërmande ak euh, euh, ngërëmul waajur ni mu yombe amoo dëboo seen ngërëm ba tax ngay dee di tàbbi sawara yal na la yàlla sori yërmande ne man ko amin kon ñetti occasion ko muy fekk sa ñaari waajur mbaa kenn ci ñoom ci kaw suuf nga fexe ba dab nga demoo boo ko defee da nga mucc ci sawara weeru koor boo ko fekkee jéggalu ci yàlla dana la jégal léegi loolu ñaareelu occasion te boobaa da nga mucc ci sawara ñetteel bi mooy saa bu ñu tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sawet na nga ci moom loolu dana nekk luy dox diggante nit ki ak safara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni julli juróom diggante julli juróom ak ajuma ba ajuma ak weeru coor ba weeru koor day dañuy far dañuy far bépp bàkkaar bu dox ci diggante bi bu fekkee nit ki moytandiku na bàkkaar yu mag yee mag a mag ba moyta yu mag yee mag a mag ñu daan yépp julli ba julli julli gi day far gi nekk li nekk diggante mu julli gee julli far li nekk diggante mu julli gee julli gi far la nekk te julli far la nekk la nekk dox la dox diggante mu julli gi jares weeru koor it noonu ajuma ba ajuma yi noonu kon yooyu saabu nit ki moytoo bakkaar yu mag ya mag rek eh, yooyu dañuy far bakkaar yu ndaw yi ci moom beneen bi hadis bi beneen bi yonente bi sallallahu alayhi wa wax ci ngeen lig weeru koor ni képp koo xam taxaw na weeru koor ngir ngëm ak ku sàkkub yor de yàlla dana ko jéggal jiitu woon ci ay bakkaaram am na benn hadis boo xam yonente bi jeex ne kullu amal bi aadama lahu mu ni jëfe jëfe doomu aadama nit ki doomu aadama lu mu jëf rek yàlla dana ko fay te danañ ko fulal benn yiw bu mu def danañ ko ci fay lu mat fukk mën nañ koo fay sax ba juróom-ñaar téeméeri yiw ba ci yeneen ful yoo xam ne sax tuddaadewuñ ko waaye nee na nee na yàlla nee na déedéet koor de bokku ci koor moom man mii maa ko moomu ko maa koy fay ndax bàyyee na bànneexam bàyyee aw ñamam ngir man kon koor jëfam yépp moo ko moom waaye koor mi maa ko kon koor su borom moo ko mooma del boppam mu wax ni aji woor ji dana am ñaari mbégte fa muy doge ak fa mu dajeeg boroom ndax buy dog dana am mbégte waaye bu dajeeg boroom mi dana am mbégte yonente bi wax ni xetuk gimiñu ko gimiñu aji woor de moo gën a neex xet fa yàlla moo gën a neex fa yàlla xetuk laj ko lañ ñuy wax misk nit ki woor ba ginnaaw digg bëccëg jëm timis nga xam ne gimiñam day soppiku mu ni xet googu de moo dàqal yàlla xetuk misk jël liñ ci Salmaan radiallahu anhu moo wax ne yonte benn yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf na masa xutba eh, ci mujjug eh, bés bi mujj ci weeru baraxlu ni nu yéen nit ñi am na weer wu màgg woo xam ne jege na leen muy weer wu barkeel muy weer woo xam ni ak guddee nga ca goo xam ni moo gën junni weer weer la woo xam ni yàlla def na ku ko woor ak wooram farata la taxaw guddi ya di ak coobarew weer la woo xam ni ku ci def benn jikko bu baax benn jëf bu baax wenn yiw ku ko ci def danga mel ni ku jëf farata ci lu dul weeru koor benn farata ci biir weeru koor ku ko def danga mel ni ku joxe juróom farata ci lu dul weer la woo xam ne njëlbeen gi yërmande la digg bi njëggalu yàlla mujj gi it ak gore la ci safara mu wax ni képp ku ci màndal aji woor sun borom dana ko màndal ci sama déeg gu naan goo xam ni du marati ba bu muy tàbbi aljanna muy fekk ko wooroon nga fexe ba màndal ko ci bis bi nga fexe ba màndal ko bu dogee nga jox ko lum naan sun borom dana màndal ci déegu bi bi sallallahu wax na ni yonente bi daan def bu fukki fan yi mujj ci weeru koor duggsee mu dundal guddi yi yee ak njabootam euh, takkaat ak laxasaayam mais sax ab ñegg lañ ko waaye mi ngi ci jublu day beru jigéen ñi dootu jaxasoote ak ñoom ci diir fukki fan yu mujj yooyu ci weeru koor ci gën a taral ak jàmm imaam Ahmad wax ni bi daana farlu ci fukki fan yi mujj ci weeru noo xam dul farloo ci yenn yenn yudul moom ma ni it la ko Sëriñ Tuubaa daan dundale radiyallaahu anhu bu weeru koor mosaan dugg si maanaam dafay ubbiku ànd ak mbégte lool mel ni kuy gan kuy teeru gan gi mu gën a fonk ci gan yi te noonu la ko jàppe mooy ngeen ji gan ci moo ndax am na xasida gu mu taalif tàmbale ko ci xayru na maa dégg sëriñ Abdul Ahad muy wax weeru koor wi sëriñ bi woor te ca njëlbeen nga mu def xasida yaa xayra dayfin ata gàttandoo ko ko ba muy jeex mu def xasida yaatal bushaaraati gunge ko ko واخنا ني وير ووي وور نكو بامو جيخ فيب نيام دوجول سي غيبنيام لغي يا خير ضيف اتى بالبشر والمدد اهلا وسهلا وترحيبا بالعدد مو ياتال غانو غوغي مو غادو كور ياو غنجي غان غي ديك عندك مبكتي عندك اي خيول ماغ لي اهلا وسهلا ماغ لي واخني ترحيبا ماغ لي ياتال ياتال غو خامني اموت ابليم ba mu demee ba ci mujj ga mu ko yaasal bushaaraati bil ayaati wa suwar yow mii di borom mbégte yi yow di borom aaya yi yow borom saar yi bi kaw ni yaa abdal muhsin suwari maa ngi lay seereloo nekk gu nekk di jaamu yàlla mii rafetal bind yi xanaa loolu lii la sëñ bay jaaxate ni koo njariñ moo aw yiw waaye kenn du ko muñ ku dul ku gëm yàlla gëm ba séenu ca daal ni façon nañoo um di sellal faw a rafetal ba xëy matal dese koobaaki giléem ak ñay waaye nag koor dëgg nag tekkiwul rek ñàkk lekk ak ñàkk naan sëriñ bi wax na ni fa sawmu a sawmu an yasuma kullu udbi woor na woor xan kulli ma yufdi fatan li ci lépp lu yóbbu nit ki ci njomti rek da eh, nga koy muy wax muy jëf muy dox muy lépp loo xamante ni day yóbbu nit ki ci lu dul noona mu téye ca boppam loolu mu bokk na ci koor waaye tekkiwut rek ñàkk lekk naan loolu tax mu ni idrubba saa'imin mahal jamaaha laysa lahu fihi siwal majaaha mu ni koor nit mën naa woor ànd ak mbooloo te kooram googu du ca amee lu dul ab xiif waxit ni bu doog jotee waxuñ nag nga dem لكل أب نان لأب بدو تلدر لبنلو وبعضهم يأكل أكل البقر وقت فطوره ووقت سهره من عمل نيو خامن بو ني دامي با باي دوك باني خدي دي لك من نك وي لك حتى يسير بطنه ثقيلا بدي مجبر بي ديسغن فيه فصار قلبه مشغولا عن ذكر ربه دي مجي خلم صح دوتو خلاتتي يالله day soxla wala leneen lu dul yàlla waaye dañuy sa siyaam ànd ak muy woote koor waxu wala yax wi fàtti lan fa xëyam waaye kooku lu toll ni fàttil di du ko làq ci kooram kooku bis peñ ci lekk ba rek naan man ba sa xel nekk ci leneen lu tudd yàlla mu doos déggante ak tudd yàlla loolu nee na du yëfi euh, jullit bu xam ak jullit te na ay xew-xew am solo yu ci xew ba ci ëpp solo mooy ci la guddi ci genn guddi ci guddi weeru koor ci la alquran wàcc inna anzalnaahu fii laylatin mubaraka la suñu borom wax ci alquran inna anzalnaahu fii laylatil xadri kon alquran mooy événement bi gën a rëy ci bu xew ci biir weer wi naka noonu xare badar bi nga xam ne ci la suñu borom xaajale diggante dëgg ak i caaxaan ci biir bisu ajjuma la di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci atum ñaareel mi ci gàddaay gi bi gàddaay gi atum ñaareelam ci gàddaay gi ci biir weeru koor ca fukki fan ya ak juróom-ñaar ci la xare badar boobu xewoon fatxu màkka ba tey ci biir weeru koor la xew ndax yonent bi sallam ci bisu aljumaa ñaar fukki fan wala ñaar fukki fan ak benn ci weeru koor ci la jóge ci la doon fatxu màkk ci atum juróom-ñetteel ci gàddaay gi fatoo googu nag bi mu ko fatoo nag ci la desiti xërëm ya desoon ci kaaba kaaba ga eh, ca la jeexe nag ci lañ màbbee xërëm yépp nag yi màbb ma waroon kaaba gi kon événement la bu rëy boo xam ne ci biir weeru koor la xewe woon moom fatu mag maarakatul xaadisiya ab xew-xew boo xam ne moom itam jamono Umar ibn Xattaab la woon léegi eh, mu doon eh, bu am solo boo xam ne ci la ñu ubbee xaadisiya googu ak maarakatul Buwayb yépp ci biir weeru koor la xewoon naka noonu ci biir weeru koor ci la islaam tasaaroo ca yaman ci biir weeru ci la Xaalid ibnul Walid eh, màbbu eh, néeg ba nga xam ni eh, ca lañ daan jaamoo xiram bu ñu wax al ca an nax la ci biir weeru la ko Xaalid ibnul Walid màbbu ci biir weeru koor ci la délégation Saqiif ñëwee ci yonent bi jóge Taayif ci atum juróom-ñeenteel mi kon loolu lenn la ci xew-xew yi yi xewoon ci biir weeru koor kon loolu mooy li nu waajaloon ngir euh, participer ko ci njëlbéenu weer bi euh, fàttaliwaat nit ñi euh, wa zakkir ndax suñu na fa wax ci alxuraan wa zakkir fa inna dikra tanfaul muminina da ngay fàttalee ndax fàttali dana jariñ julli kon fàttali ko lañ jubloon di ñaan yàlla mu defal nu ak dégg ak topp di ñaan yàlla mu nangul nu suñuy jëf te fulal ko làqal na ko fa yàq yëgul di ñaan yàlla mu nangul nu lépp te fekkee loo na ko ay ati at e, ànd ak wér guñ ko man di defe ànd ak sellal ànd ak yéenente lu rafet jullit yi mu dëppali seeni xol benn li ba seen teraanga ja ñu jëkkoon a mën a di soo ci seen loxo wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته